asalaamaaleykum mbooloo bi eh, maa leen di nuyu di leen dalal sañ naa leen dalal en tant qu'enseignant parce que tey en fait euh, jàngale moo xewle defe naa tout le sens euh, du geste de monsieur le ministre euh, comment dire monsieur Guirassy donner la parole à un enseignant qui va parler en fait au nom de l'école et de l'importance de l'école effectivement euh, Ousseynou a en fait ngeen baal samay wax wala dafa xaw a doy waar tuuti bon je vais essayer alors hein Ousseynou euh, lu mu wax euh, maanaam mooy li ma gëm mooy que école nit ki balaa ngaa jëf da ngay jàng dégg balaa ngaa jëf ak lu mu munti doon na jàng muy enseignement professionnel enseignement enseignement manuel ak mën na ko jàng bu su yàggee boo mokk nga mën a def mu ci jariñ li jariñu ci tant que mokkul à la base njàngale bi mën a sa bopp lu mu waa ci lu am solo mën a jëriñ sa communauté wax dëgg yàlla su aussi nu jëlee en fait éducation nationale def ko priorité di ci joxe ay prix di joxe en fait prix de l' excellence et consulat man la honoré en tant qu' enseignant Et il a raison aussi parce que en fait, j'ai eu l'honneur d'être en lycée de Boudjoup de Bourg en fait, pendant très longtemps, toute ma carrière pratiquement, en fait, les deux tiers euh, de ma carrière. Voilà qu'au passé, et comment j'ai eu la fierté d'avoir formé beaucoup d'enseignants et même le président de la République a été mon élève en classe de première. Parce que je Alors, la plus grande fierté de l'enseignant, c'est pas le salaire qu'il a à la fin du mois. C'est de contribuer à former quelqu'un afin qu'il va devenir quelque chose dans la société. Ben, par rapport à mes élèves, chaque fois quand j'étais en classe, moi, que, en fait, vous payez à un architecte ou à un maître maçon de l'argent pour qu'il fasse un bâtiment. Il a l'argent à la fin du mois. Mais sa plus grande fierté, moi, je peux pour un bâtiment, et eh, bâtiment bien, c'est ma fierté aujourd'hui en fait. Et heureusement qu'Ousseynou a compris la mission. Je les ai éduqués parce que Ousseynou est là, sa Mais euh, ceux en fait, qui, euh, qui sont médecins, euh, etc. sont là aussi en fait quelque part. Sans pourtant me vanter, on m'a niveau de la famille. J'avais une obligation de rigueur. Au fond, le problème, c'est la rigueur au niveau de l'éducation nationale. Pas seulement au niveau donc classes, encore une fois, euh, c'est bon de donner des, comment dire, des, des prix, euh, des cahiers, etc. Mais il faut une action volontariste. Action volontariste. Il faut que nit ki fu mu nekk nga nekk surtout ak am xam-xam nga mën a jëriñ sa communauté sa communauté à travers le savoir. J'ai été dans les ACAPES pendant trois ans maanaam jàng naa par ñetti at xam ne kenn mos ma fay dërëm parce que euh, Sénégal mënoo xaar euh, ngay jël enseignant euh, comment dirais-je pour mën a matale lépp. képp ki nga foofu nekk na comment dans la communauté say voisins tu es responsable de ce qui se passe euh, cahier yi baax na trois cent euh, comment trois cent kit yi ñu joxe baax na trop mais vraiment batewul dara li may ñaan nit ñi mooy ku nekk sa voisin ak ci li nga am ci sa poche nga dimbali ko ci ouverture de classe bi les parents en ont besoin état bi mënul lépp en fait vraiment maa ngi gërëm euh, tout le parterre là maa ngi gërëm Fatima Mbengue bi xam ne ne sama mbokk la wax parce que maama Aliou Diagne Mbor <laughs> vraiment euh, maa alhamdulilah bi xaalis bi vraiment je me suis enragé. Si le savoir est une arme alors soyons armés donc dañoo war a miser ci éducation tey monsieur le ministre en tant que autorité mu décider jàppale goxam décider def activité bi distribution de kits scolaires pour goxam. mu invité suñu si nag en tant que xaritam en tant que rakam en tant que ki nga xamante ni bokk nag moom di liggéey si biir gox bi donc ñu xam ni tey du activité politique c'est une activité citoyenne activité boo xamante ni si woo ay autorité en tant que citoyen def des un acte citoyen jàppale yi nga xamante ni mooy gox bi bi ñu nekk muy Médina encore une fois je vais parler aux parents d'élèves ñu leen koy ñaan parce que dañoo nekk Médina mu nekk contexte bu doy waar Médina ñëpp xam nañ ni dafa naqaree yor gone ñun ay xale lañ dund nañ ko man sama maam moo ma yar mais dafa daan am difficulté bu nekk pour teg siraay bi parent bu nekk dafa am problème à la pour mën a yar doomam mën a yar xale yi responsabilité loo xamante ni dañ ko war a jël parce que dañuy wax parent boo defee li nga war a def gone gi bu màggee bu deful sa doom sa poos sax dina doon sa noflaay ndax duñ la woo di wax kaay jëri fii wala kaay mu ngi kaso wala kaay mu ngi fii bu deful sa poos sax mu doon sa noflaay donc lu ñu war a def mooy jàppale xale yi yar leen tette leen éducation dafa laaj rigueur encore une fois yi bu ñu tàyyi nañu def lu ñu war a def suñu njaboot parce que xale yi tey mooy doon magi ëllëg te les autorités futures mooy xale yi tey nga xamante ne ñoo ngi fi te dina am ay ministres macha allah gëm naa dina am ay hauts responsables mën na am sax président yoo xamante ne xëy na Médina la ñu jógee donc responsabilité boobu parents yi dañ ko war a bàyyi xel te ñu leen di ñaax encore une fois ñu jàppale bu baax a baax gone yi donc du ma daaneel sans remercier ñi nga xamante ni ñooy éducateurs yi vraiment ñi nga xamante ni ñooy former élèves yi gis naa ni c'est des acteurs de développement ñoom ñooy premier acteur de développement yi donc les éducateurs ñu leen di féliciter encore une fois di leen encourager di leen wax bu ñu tàyyi ñu ngi def liggéey bu ama ama am solo te ñu leen di ñaan encore une fois ñu jàpp bu baax jàppale parents yi si éducation ndaw ñi jàppale parents yi bu baax a baax si li nga xamante ni ñooy doon yi mag yi ëllëg. daje yëpp neex na waaye kaay leen ñu jàppalante pour seeni doom macha allah te ku ne boo xëyee fajar yaa ngi xëy di gàddu sa doom yaa ngi dem école yaa ngi dëdd kon ki la ci sa doom. kon tubaarkàlla macha allah kooku jàppale ko rek moo nu war may woo nag waa Médina yépp ci sunu doom yi Ousseynou di leen wax ne yàgg ne nu taxaw ni ngi ci lépp nag mais lii nu ne dama bëgg mu ñor ñu Médina lii nu ne dañu ma parce que nag kuy wàlliwaan dañ ne su dëkk moo tëggul te ñun nag amul lu dul Médina amul lu dul sunu gox Médina du 41 Médina fépp la mi ngi ñaan fu waay dëkk na nga fa yëngu yëngu bi mooy lan nañu booloo jàppale suñu doom ndax jàppale suñu bopp la jàppale euh, ministre Ousseynou Ly jàppale suñu bopp ñun waa Médina la kon man Wally Diop maa ngi ciy woo ñëpp nañ leen jàppoo takkoo bokk ndey bokk baay xam fi nu jëm nag xam fi nu jëm ndax Médina doy na waar jaxasoo na waaye bu ku nekk xamee fi nga jëm fa tubaarakallaa macha allah kon fi ni daje dina neex yóbbu suñu ministre bii tubarkàlla ci suñu doom ba ci biir maire bi te bu boobaa ku ne di ci gis sa bopp waaw loolu moom man maa ngi leen di ñaan dee la jël leen tax ñu ñu yor mouvement yi suñu daje yëpp dañ ko daje ku yorul mouvement dugg leen ci mouvement yi nañ leen ànd bokk ndey bokk bàyyi xam fi mu jëm fan la politique nag tey dañ ne indiwuñu fi mais il faut nu rax ko ci parce que politique dafa doy waar te ñëw rek naan damay politique damay politique politique dafa ànd liggéey yi ànd ànd ak xam ki nga bëgg kan la xam fi mu la jëmee fan la xam fi mu la jëmee nag mooy ànd ak ki nga xam ne ci suñ Médina la dëkk doon doomu Médina te dara yëqatiwu ko depuis bi mu doonee ba tey ku ne xam nga ne politique day am fond boo xam ne dañ koy génne di la ko jox ngay liggéey loolu yëpp amagu fi muy génne xaalisu boppam di ko def ci waa Médina kon dama ne nañ leen jàppale ministre Ousseynou ñu jàppale suñu bopp la